te lii Abdoulaye def daf may war na teg su ma doon xare ji su ma geesoo dinaa ko gis dañu ñëw nag doon def tournée euh, département Diourbel defaale tournée département Mbacké dañu ñëw comme li ñu def ndula jóge fa département Diourbel dañu ñëwaat euh, département Mbacké ci ñi fi nekk andi leen ay bourse loolu mooy programme ñëw bi biñ ñëwee fekk fii beneen mbir moo xam ne tey ji eh, bu ko Sénégal gisee nañ xam ne weetuñu ndax lii rek la nit diwut Abdou Lahad xam na leen lim def nii waaye nag eh, bourse yi biñ ko indee vingt cinq bourse la pour département bi mais danañ ko tekki loxo Abdou Lahad Seck bourse yi boo ko xaymaa ëpp na 60 million mi ngi ak eh, secrétaire général bi jaar nañ du jox nañ seen i bourse yi ñu indi fii tam dañ ko tekki loxoom parce que yaakaar naa ne kuy indi teranga Touba indi fi lu loo xam ne am njàng la euh, dëppoo na ak li nga xam ne luy dimbale Touba la parce que xale yi am bac te kenn orienté wu leen bourse yooyu lañ leen indil pour que ñoo mën a dem ci njàng yu mag yi pour ñetti at. andi nañu ko vingt cinq bourse la mi ngi nii ak secrétaire permanent. en tout cas man sama xol sedd na bu baax a baax. mais bourse yi nag négociation bu diire ñetti at la daanaka. parce que dañu mujj UNACOIS signé convention ak ay école commencé IAM ba Moustapha Guirassy ñëpp xam nañ ko ancien ministre la léegi député la ak ku ñuy wax Ibrahima Mbengue moo am INSUP Afrique mais bi ñu signé ak HECM nag la kooku am xolu ne man de tàmbale naa 100 bourses jox ko UNACOIS Yeesal 100 bourses bi ñu ko calculé booba egg na 600 millions léegi nag noonu la ko doxalee Tamba ñu yobbu fa bourses yi keroog mag daam yi ñu bërki dem nag bi ñu toogee mu ne ma ah danaa may bourse waa ndulu de waaye Abdoulaye Seck ndax sa dagg il faut may ko 15 bourse la njëkk wax léegi yokk na ci 10 muy 25 mi ngi nii bi bu ci nekk valeur 2 millions 400 mille la boo ci yokkee inscription dina egg 3 millions alors LMD la LMD mooy soo amee baccalauréat dana def première année deuxième année troisième année muy licence licence bu ca eggee tey mën naa la wut liggéey fu ko neex wala mu wut stage te bu boobaa sax suñu membre yi du ñu seetaan mën ñu def stage parce que Moustapha taal mi tey activité am su reprendre mën na jël mën na jëlandoo 15 stage 15 stagiaires Mayoro mën na jël 10 stagiaires Dame Ndiaye mën na jël 5 stagiaires man naa jël ma man donc loolu dañuy dañuy ak encadré xale bi après baccalauréat première année deuxième année troisième année bu stage am baaxee mën nañu ko ci recruter. di wax ni mu organisation bi dinaa ko waa yeesal kuréelu Serigne Touba la mbooloo nit ki. maanaam mooy mooy yàlla mooy saggal boppam nit ñi di boolee ña war a ànd ñu la ña war a ànd rek ay ànd ñu wër la ànd duñu ànd moom yàlla dafa def ma gis mu gis ma rek bëgg ma ma gis ko bëgg ko ñu wóoloon te jàppante booba xalaatuñu woon lii tey waaye ñuy dem tey di dem ba lii yëpp am comme ni mu ko waxee yeesal gii ba ma ci jàpp booba wér nañ ci trop waaye ma ne ko président jàppal rek li wóor mooy bis bu ne sun mooy gën suñu démb bis bu ne ñooy gën mooy gën suñu dem bis bu ñu ñëw bu ñu song ñu bu ñu bu ñu tàmbali rek dana gis suñu dem dana gën suñu dem te boobaak léegi yaakaar naa dara di déggu tey mu ngi nii président jël na ko boole ko ci dialogue bi yeneen ak yeneen dana ñëw bourse yi gis ngeen ko noonu lañ ko jotee mu jël ko jimbalaat ko nit ñi comme ni mu leen ko joxee nii noonu la koy joxee ci réew mi yëpp loolu xam nga ni doy na promotion comme ni ñu ko waxee léegi mooy RSE parce que inaan quoi loolu moo war a nekk rôlam waaye nag dañoo jot organisation bu xaw a bu xaw a tasaaroo ñu war ko nag dégg tabaxaat mais léegi bu ñu ko dooleelee ba ñëpp gëm ko mën nañu doxa doxa dox ba entreprise yi nga xam ne ñoo ne ci réew mi fu ci entreprise nag dañ la fa fekk la nga war loo population bi nga di ko def. mais président ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm en tant que président waa yasal ci taxawaay bu rafet bi ngeen di def ci dëkk bi ci wàllu liggéey bi. di leen féliciter di leen sant dafa mel ne li sëñ Muntaxa woote eh, wuy si ngeen ko ci mooy tabax université pour nit ñi dem jàngi lii nag ab gunge la ci loolu sëñ Muntaxa woote kon nag ñu ngi leen ci sant di leen gërëm fas yéene ko ànd ak yéen fas yéene liit ñu jël ko jëbbal ko ñi nga xam ne ay jànkati tubaab lañ waaye nag dama ci profité di wax nit ñi ne ñu soññ nit ñi ñu gën a dem jàngi ndax man Abdou Lahad xaritu président de la république la mm-hmm. ñëw na sama kër ay yoon mm-hmm. ma jàppale ko ba agsi fi ma agsi mm-hmm. mais actuellement gouvernement bi mënu ma caa bokk li ma mën a doon rek mooy député te dara warul ko lu dul jàngi ñàkk jàng kon nag war nañoo fexe ba gone yi ñu continuer góorgóorlu ci ñu gën a jàngi kon nag euh, ñu ngi lay sant président di la xamal lii day président de la république nga ko defal parce que réew mi nga ko defal mais nag euh, ñëpp war nañ cee taxaw di ñaan nag état Sénégal ñu gën a jàppale UNACOIS Yeesal di wax nag ñeneen ñi nga xam ne dañoo yoreel kuréel yu mel ne yow ñu def na yow am réew daal ku fa nekk da roy ci ñi nga xam ne ñu ngi def lu baax beneen bi ci topp it nag ñu di la yóbbante ay kàddu ci président de la république seetlu nañ ne Sénégal jafe-jafe am na ci wàllu politique parce que politiciens yi indi nañ ay coow yu bari ci réew mi te coow yoo xam ne débat la yoo xam ne du doon dëgg ñu bëgg nag debaa yooyu doonul dëgg ngeen fexe ñu lijjanti ci waxtaan wi ngeen war a waxtaan ba débat yi politique yi ñu yóbbu ko ci dëgg débat yi mooy lan mooy Sénégal munu mënuñoo def un un an yu nekk mu doon élection loolu lu metti la ci réew mi ndax un an et yu ne bu ñu defee élection président de la pour mu liggéey du yomb ndax jafe-jafe la beneen bi ci topp mooy ñi nga xam ne kujje politique bi la dañuy continuer di nekk ci ay coow di indi néew réew mi ay manifester di gàllankoor yoon yi di gàllankoor mbedd yi nit ñi duñu mën liggéey loolu day du indi économie ci am réew ñu bëgg nag nga wax président ci seen programme bi ñu programme ci ne nañu def Sénégal ñu am euh, année électorale at moo xam ne ci la ñuy def électorale muy élection présidentielle élection législative élection locale mu jeex ñëpp def liggéey yi